Firi Info li ci yéen kay beeg Thierno Dia. wëree wa dem na ka nga wax yi mag day kànne la faw jëlu am yëral ma l'observateur moom mi xëy di ñu fësalal mat xëy Sénégal dox ci diggante Côte d'Ivoire ni ki tey ji ci huitième de finale mu dubbee ko wàcc ma daan naa la ku daan dagay féete kaw yéen kay bi di ko dëggal ne suñu gaynde gi jamono ji ñu ngi en forme ñu ngi concentré baax a baax ci match bi da jàppee ko final Aliou Cissé mu ngay xamle ci biir yéen kay bi ne donte match bi dina métti nañ cee séentu ay waaye lu mu xam ca mooy gagné rek a ndax siggil Sénégal yéenekaay bi di ko xamal ne jamono ji nga xam ne la Youssoupha Sabaly di del siwaat ci équipe bi Pape Gueye ci lay génn ndax du football tey yéenekaay bi ne ma téema ma yëri politique ba del siwaatal ñu ci ci parti bii di FDS lay gelluwaa ginnaaw bi ñu dalalee ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ngir mu wax bëgg-bëggam ngir ñu ànd ak moom jàppal ko tànk ci lu jëm ci wal élection présidentielle 2024 yi docteur Babacar Diop ne ko maa lànk su ma may jàppale ab candidat lay te ci biir Yewwi Askan Wi ci lay ni bokkul ci Yewwi du lu may man enquête yéenekaay bi di ñu xamal ne di wax ci coowal commission d'enquête parlementaire bi ci biir assemblée nationale réeróo ga door ngir taxawal gi ñu bëgg a taxawal commission d'enquête bi la ñu ci bëgg mooy député yi maanaam may nopp bu baax a baax si si ñu tuumal ca conseil constitutionnel di mbirum corruption ñu leen ko tuumal di waa PDS ginnaaw bi ñu rëkkale seen candidat bi nga xam ne mooy Karim Wade yéenekaay bi dañu xamal ne en tout cas loi bi dafa mel ni ñaari lecture la yor wala ñetti lecture ndax kenn ku ci a lii arrivé bu dee Théodore Montel la mu jàpp nag article 48 la mu wax assemblée nationale mën na ubbi commission d' enquête parlementaire saa yu ko neexee surtout nag bu fekkee sujet la boo xamante ni ñor na askanu Sénégal gi askan wi bëgg cee am lu leen leer des naa taxawal commission d' enquête parlementaire bi ña ñuy tuumal su boobaa ndax la ñu xamul ne ñoom ñu takk ci mbir yoo xamante ni bu ñu ko toppee élection présidentielle mën na ñàkk am te nag ñoom bu fekkee noppi neen ngir bokk ci élection présidentielle 2024 yi du ñu laale benn yoon ci mbir yi waaye nekk ñoom Benno Bokk Yaakaar amoon nañu possibilité dal di bokk ci initiative bi ñu mel waaye nag booy xool ci assemblée nationale ba fukki député ak juróom-ñett ñoo ko séq fukki député ak benn nag ñu ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoo ñooñee nag mën noonoon a bloqué initiative bi ñu mel lan moo tax ba ñu bàyyi ko mu dem lu nu mel nag moo jar samp laaj waaye nag waa PDS la ñuy xam le ne guerre dafa am guerre gu toll ci trois milliards fu mu jaar at kan lañ ko jox yéen a kii bi di xamal ne magistrat yi jamono ji ñu def leen akub say ngir waxi commission d' enquête gi ñu bëgg a taxawal ngir mu enquête ci waa conseil constitutionnel loolee bañ a jëm kaw ndax lu nu mel nag day indi féewale gu mag sëkk ak séparation des pouvoirs gi ñuy wax ci réew le quotidien yéene bi mi ñuy xamal ne waa IMS ni ki démb wax nañ seen communiqué bi ñi séq géew politique bi ak ak langu politique gum ci mën a doon bokk il faut nga respecter institution yi ci réew waa IMS la leen métti ca dëgg-dëgg mooy tuuma yi jël te ko ca ndoddi saasi ca nekk ca conseil constitutionnel Ousmane Sonko fi élection présidentielle 2024 yi di Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi nag ni mu ngi ko waxee bu mu génn niki démb mu ngay sàkku nag ci yeneen candidat ngir ñu jàppale mbërëm nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ngir mu gagné élection présidentielle 2024 yi source a di ko gën a dëggal ne Sonko joxoñ na ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ngir mu nekk candidat ci élection présidentielle 2024 ñu jëm yéenekaay bi di La di ñu xamal ne waa parti démocratique ñu ngi sàkku fi amee yéenekaay bi di Walfadjri moo ñu ko xamal ba léegi Walfadjri di xamal ne ki nga xam ne mooy Abdoulaye Pound Dionne nee na pare na ci Macky Sall digganteeg moom c'est fini ma génn ci national bi dem ci local des fii ci diwaanu Koungheul doore ko xibaari tàggat yaram ab match si bu amee woon ca Maka Guy match si boobu nag ñu ngi ko jagleloon ki nga xam ne mooy Ousmane Top mu ngay def déclaration bu am solo nee na daal moom génn na ci benn Bokk Yaakaar ka muy jàppal tànk di Khalifa Ababacar Sall di leader bi nga xam ne mooy taxawu Sénégal ba tey des ci wàllu local bi di lakk gu amoon ca Cepp Pël ab dëkk boo xamante ni mu nga nekk ci commune bu Gént Pathé ginnaaw nag lakk googu yëpp ba mu amee muy lakk gu méttee métti genn kër moo fa tàkk ba defub doom dangay ngay seet lii rek ñu yendoo ak jàmm